Euh, dal leen ak jàmm mbokk internet yi safoo di seetaan Buzz M Sénégal ñu leen di jaajëfal bu baax a baax si topp bi ngeen di topp seen bi moo ngi noonu léegi Omar saw mu ngay continuer di def ay révélation révélation yu doy waar nag bi la yoon mu daal di koy yëkkati tek ko ci kaw président Macky Sall dinañ ci ñew euh, gën ko yaatal kaddu yoy nga Omar Sow yëkëti nako di wax kané nak euh, président Macky Sall mi fi néwon ki di premier ministre Ousmane Sonko ñoo am deal bo xam dal daal daat nañ koy tek mu nekk kàddu yu doy waar révélation yu yéeme yoo xam ne mii di Omar Sow yëkkati na ko ba léegi nag na nag jubloogut si ay mbiram mu nekk kàddu yu doy waar yoo xam ne yëkkati na ko dinañ si dikk ak yeneen jàngat yoo xam ne dinañ ko si amal naa loolu nag ay jàngat yu ama am solo te pertinente daat nañ koy amal eh, si eh, demuk président ba Bassirou Diomaye Diakhar Faye ah, Touba Tivaouane mu nekk kaddu yu ama am solo ñu bëgg leen ko tegtal ngeen daal di koy teelu mbirum Omar Sow dina si dikkaat bi yaatal ay dañ koy tàmbalee rek di ya, rafetlu ba ca lool di gën a am xel mu dal ci mat gi nga xam ne ni seetlu nañ ko ci sunu njiitu réew te mooy cheikh mahmoudul basir jubaay fay ak ñi mu jabooti ndax ci tawfiix yàlla ba leen askanu sénégal doyloo jiital leen ñu jox leen pouvoir temporel ñu war a jiite réew mi teewul ñoom ñu bàyyi xel ni kat am na ay pouvoir spirituel yoo xam ne ñi ngi fi ñoo leen fi jiitu appelé at doon si ne ay wayjur te mooy sunu këru diine yi ñoom gar laa juwuñ liñ leen jox waaye dañ koo jël dugalaat ko maanaam ci biir doxinu réew mi ngir lépp mën a rafet bi ñu demee ba nga xam ne ni fal lañ leen boobu dal jëmmi jamono yi génn kuñ fenn ñoom ñu am mat gu toll ni lañuy la ñuy jagleel kenn seen première sorti di ko jagleel toit bi comme ni ñu xamoon suñu président yi daan ko def ñu ne ñu loolu du fi am fonkal li nga doon fuñ tudde say maam yëngatul loolu la Pacoté waxoon nit ki fawu mu respecté boppam ñu door ko respecté bala ngaa cërale kenn nag sa première sortie mbete nga def ko suñu ëttu diine yi nga xam ne ëtt boo fa dem rek da ngay ñii la accompagner woon doon la jàppale ba nga am accédé ci bi mën naa ni ci ëpp foofa la ñuy intima foofa mooy seen mashrab diine yi foofu la ñuy dellu ndax yaakaar li ëpp ci askanu Sénégal boo ci génne woon ñi nga xam ne nii dañuy dañoo bokk ci këru diine yi la cee des du bari kon ñooñu. alaa kulli xaal nga dem delloo mbàttuma ca ndaala dem cëral leen sa première sortie nemmeeku gox boobu nga dem bu dee goxu bawal bi wala goxu Tiwaawan bi nemmeeku mboolem njaboot ga fa nekk waaye nemmeeku sa waajur ya fa nekk nag te mooy ku demee ne Sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla yàlla guddal fanam te yokk wéram ku demee ne Sëñ Babacar Mbay Si Mansour yàlla yàlla guddal fanam te yokk wér wér-géram loolu alaa kulli xaal nga dem cërale leen cër bi leen yàlla jox. loolu am solo la ndax Bassirou djibay Faye képp cër bi ko yalla jox ba mu yilif senegal administrativement du ko raw la yalla jox manam sunu kilife yi diine yi nit ñi di len bayyi xel ci li upp ci seenu doxin kon ñu bokk lo xamni mënu ñu ko seddo dañ ci bayyante xel mom nak moy ndaw mom lañ fal barki demb mu fekk ji ay way jurum kon loolu lu normal la dem gi dama dama ko rafet lu àgg ci lool ñaaral ba war ji mu maanaam ca barab yooyu ba mu fa demee loolu gën a dikk gën maa jox xel mu dal ak xol bu sedd waaye ma xam ni kii ku amuk ràññee la ku amuk xàmmee ndax da dégg ñu naan tuubal maxruusa am ñu naan dëkk bu sell bi bépp dëkku diine nit ki fay dem war na ma fa war naa mën a sàmmonte waruma ja nga xam ne nii aju na ci dëkk boobu wàññiwul dara ndax loolu dafay jëmmal ak tawaadoo ci yow dafay jëmmal modeste dafay jëmmal woyaf te lu ñu taamu ci dundu dooma adama la waccel sa bop borom bi tabaraku wa taala yekati la lolo tax li mu def ni man démb bi ma gisee musu mi dàll yi man basiru jumaa fay ko deg diine la bo deme ci lu karim yaa ngi fay fekk borom bi tabaraku wa taala bi bi wax ak yonent yàlla Moussa ko inni ana rabbuka faxla na alayka innaka bil wadi al muqaddasi tuwa musa yaa ngi may yonent yalla ko borom bi tabaraku wa taala ma lay deg mo ko bi ci ben bo xamni ni xor bu lambo ay cellaange la su bul sa dalé ci ndum gëna gaawé gaawee yalla musa tigu ci ca ba daa summi dalé ngir munaajaat bi nga xamni war dox ci digënté mak borom bi wa taala kon ci buntu boobu noonu rek da nga yegni nitu di ki yag na war wormal barab boo xam ne nii séntu na fa ak mbax ak yiw nga summi fa say dal ki dik ba ci Touba dugg ci jumaay Touba ji war mo joju nonu lu jekk la lu jaadu la. bu ko neexoon mën na ko bañ a def mais def gi nag moo gën téeméeri junni dem na ci ëttub sëñ Muntaxa war ma jum fa am tax mu sumb ay dàllam man ma ko gisee billaahi la sum foofu la sama sama sama sama xel dem ndax borom bi tabaraka wa taala ndigal la ci jox yonent yàlla Musaa faxlaana alayk innaka bil waadi muqaddasi tuwa summil yi ngir lan mbaax ga muy sintu ca barab booba kon moom bu fekkee dafa dikk ci ëttub sëñ Muntaxa summi fa dàll yi ngir war ma jum si jox sëñ Muntaxa loolu alaa kulli haal lu dalal suñ xel la xam na te tax na tey ñu xam ne kii la bu tuut xaar tax na ñu xam ne kii maanaam naturellement yar bi moom la yàlla def ci moom par rapport ak maanaam gisin bi nit ñi di am ci moom di ko jàbulise ka waxal loo xam ne li ci ëpp dara du ci dëgg rawatina na dem ci Sëriñ Muntaxa def ko wéyjuram billaahi lasim nuyoo ko nuyoo boo xam ne ànd nag war mu dëgg nga xam dafa iskaat dafa fermer porte ñi nga xam ne daa dañ bakkaaru ci moom loolu tax Cheikh Mouhamadul Bassirou Diomaye Faye maanaam am na nu mu doon demee dinaa ne ko soxor ci ay adversaire am la parce que chaque jour da leen di fen loo waaye am na nu muy demee man damay jàpp ni ku bari yërmande la ndax xam na ni nit ñi ñu ngi bàkkaaru ci moom tal la ci li ñuy ci moom dara du ci dëgg moo tëjee leen porte boobu nga xam ne nii tëj yi xanaa koo xam ne yàllaa la natoo moom nga di fenkat koo xam ne moom naturellement di dox di fen moom moo la gën a lépp waaye koo xam ne la nga doon wax ci ay principe nga ko wéeroon jàpp ni wax mooy ci yow ngir lii nga defoon constat boo demoon ba gis aw dox yi dem nag naa yi nag wax dëgg yàlla jëmm ji fit lootuma jëmm ji moom bëgg na ma bàyyi fen yi ndax fi ma ko doon fàkkal ak ki ma ko doon présenté wax dëgg yàlla ci ay doxalinam depuis mu toogee ba jëm nii woote naag loolu bu ko defee nga noppalu loolu man remarqué ko ci ci doxalin Cheikh Mouhamadou Bassirou Diomaye Faye ni ma def ba nga wax dëgg yàlla ah ko gis aw doxalinam nag da nga xam ni ëpp la nga wax ah te ko jéem a jàbbuli si dara du ci dëgg kon alaa kulli xaal noonu mu doxalee man de rafetlu naa ko bàgg ca lool xam naa audio bi gudd na waaye ma dolliwaat ci beneen audio ngir maanaam ba ja topp uji mu gën a gudd guddaay bu bopp yooyu noonu. bi yàlla defee tey wax dëgg yàlla mu dem ba gisi sëñ bi ñëpp gis nañ war mu ji mu ëmbal sëñ bi cofeel gi ñeewant gi te loolu njëkkewu ko ci sëñ bi ndax boo xoolee Aminata Mbengue Ndiaye bi nga xam ne nitu àddina la ci niñ ko mën a waxee keroog ba nga xam ne tasee naag moom fa mu taseeg moom dafa déplace def déplacement alaakulaal njiigu ba ci wetam loolu wane tawaadoo wane modeste bu nekk ci moom. ko kii da ngay xam naturellement lii moo nekk ci moom waaye teen yëmu ca imam ba nga xam ne nii defal na ko ko ci jumaay grande mosquée waaye ñooñu cër boobu mu leen jox ak er gëdd boobu dañ ko gën a yelool Sëñ Muntaxa dañ ko gën a waatu waa kon li mu defal Sëñ Muntaxa ci jox ko gëdd ko cër du way juróo ko loolu alaa kulli xaal day wane ni naturellement kii nii la ko yàlla bindee alaa kulli xaal ci waggar ak war ma ju am ci kilifa yi mooy lu ma rafet lu baax di ca lool ndax loolu poussé la boo xam ne day ñaw maanaam fissure yi amoon ci déggini nit ñi entre pouvoir bi ak maanaam këru diini yi waaye entre njaboot gi ak këru diini yi parce que lii am moom lañ xaar gis nga Sénégal pour mu avancer faaw ñu tàppe xol yi faw ñu génn bañante geek maanaam mal compréhension diabolisation bi am ci diggante beeg felalante geeg yooyu yëpp faaw ñu mbete ñu teg ko le ba boole suñu ay doole di yëkkateenoo di tegandoo te xam ni yàlla dañu boole. luñu munte seddo tay chaque jour nak borom bi tabarak wa ta'ala wax ni la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim du ciege ni ni damay wacc di len defal li nga xamni man ngeen ko waye bu ngeen ci gor luy neew ko yi ma defal len ci lu kawé seen ndort lu kawé su ndort nak moy li di am nga xamni ni jub nañ election ñepp japp na senegal day tak ci tawfiq yalla yalla may ñu dem election yo xamni ni yel élection yu ko gëna jaar yu mu ta gis transaction am ci digënté pouvoir be ki fi fekkon ad bepp xamni sun démocratie ñong na waaye ñu jóge fa te yàlla defal ñu jàmm ju toll ni ki nga xam ne moom la yàlla teg ci réew mi ci bopp réew mi ci loxoom mu am ràññee gu toll ni am na ñu ko siqal kenn ku ne mu joxaat la cër ba nga yellool ba nga jagoo laal lii man damay jëm góor gëm ni góorgóorlu Bassirou Diomaye Faye àggu fa góor góorgóorlu Sidna Ousmane àggu fa tawfeex yàlla képp la mën a doon parce que lii nii ñoom depuis bi ñu toogee bi jëm bi jamono doxin wi nga xam ne fu ñu fële rek sa xel gën a dal wallaahi lazim tawfeex yàlla la maanaam yàlla moo moo waajal Sénégal ci façon boo xam ne bëgg koo jàppale ci façon bo xamni lu bari ci ay fissure ay xar-xar ay xoti xoti ku fi amon yalla bëgg ko manam recadrer wat ñëwaat ko faawu manam mu doxali ni muy doxale loolu tax kul hal man damay japp ni ci taxaw borom bi tabaraka wa taala ñom ci lañuy dox ta li am démb jëmal nako ba bu dikkee def na lay waré fam ta moy yalla mom la tegg rew bi ci loxom njabot gep njabotam la fu way man nekk ci senegal basiru Diomaye Faye da la wara taxaw ci sa ay soxla xolut ki wala waaye da say soxla da caa war a taxaw ci ñoŋal sa dund balee war ci yow mën a am ci yow liy gàllankoor mu man la ko wàññil sa kéem lay kàttan ci sa ak dund loolu ba mu dikkee lam jàpp ne mooy priorité ci waa Touba la ñuy yittewoo bokk na ci am ndox waaye bokk na ci assainissement nee dana def kéem lay kàttanam ba ndox mi moom maanaam mu def ci ay feejal ci yéenam waaye te assainissement bi loolu alhamdulilahi rabbil alamin xam naa dañ ko ci dolli nag mooy fexe mu fexe ba ndaw ñi am ci lu jàpp am ci lu ñu yëngu man ci suuturlawoo loolu ala ko xam ñu ngi ko koy dolli ci programme bi léegi tey loolu mooy wareefam ba mu ko defee tey Cheikh Mouhamadul Bachir moom si Sëñ Abdul Qadir wax dëgg yàlla c'est-à-dire dafa discours yu responsable yoo ànd ak responsabilité wallaahi laasim ndax nit ki tey maanaam ngir ñàkk a du tey nga seeral ko li ko yàlla may te wax dëgg yàlla jël na kàddu ga wax ci waxin boo xam ne nii waxin bu jaar yoon la leeral na ko ne tey nguur bu la ko yàlla dénkee yaa jaboote ñëpp te si nekkul ni waa Touba képp la la toogal waaye même ci dóorutub julli sax bul fàtte ci njabootam la boo toppatoo koo xam ne leen toppatoo wa Sëñ Muntaxa mooy wax joo xam ne joo ànd ak responsabilité wax dëgg yàlla démb sama xol wallaahi rasul dafa sedd bàgg ci guy ngir xam ni maanaam man lii laa doon xaar ci senegal lii laa doon xaar ci Sénégal te gis nga loolu noonu bu amee yàqul dara ci ñu jàpp ne dañuy caqaayu alalu réew mi wala dañuy jël alalu réew mi di ko basar basar di ko bafarde di ko def ci fu mu wërta nekk déedéet mais njëkk alal ji di dem fi war a dem bete maanaam kii bi xayaat euh, ijtimaaria bi ñu yàlla bi ñu yàlla boole te muy suñu dundin socialement maanaam mbete ñu dëgërël buum yi dëgërël gu dëggu ci ci ci mboolem sénégalais yi di man di yëkkateendoo di man di tegandoo di man di dawal compréhension ci lu baree baree bari bu ko defee loolu dana faciliter suñu doxin alaakulaal ba ñu mën a avancer naxul afdal beneen audio